net géejuwaay info point com ñu ngi ak euh, Ngagne <laughs> nga xam ne journaliste la tey journaliste ñoo ko tiim di ko posé question euh, ku ñëpp xam Siri Odel macha allah mu nekk benn roykaay aussi ah mu nekk fierté aussi géejawaay ndax doomu géejawaay la <laughs> moo tax géejawaay info ñëw pour am benn entretien exclusif ak moom euh, ñu bëggoon xam gannaaw bañ la nuyu kan mooy Ngagne ba pare. Ah, déjà maa ngi nuyu ñëpp ñi seetaan site bi géejawaay info. nekk na loo xam ni fierté la tey ñu toog dañu interviewé man nag ñu may woowee Demba ci série Idole bi tax tey jii ñu bëri xamee ma ràññee ma si àdduna bi donc Demba journaliste la boo xam ne culture lay traité si biir série Idole waaw kooku daal mooy mooy Demba tamit nekk na tamit koo xam tamit léeg mu jéem a doxaan ñenn ñi léeg am tamit ñeneen ñoo xam tamit ñu ngi ko sonal si biir série bi et tout ça mm-hmm. euh, léegi Demba ci euh, série boobu tey lan moo xew ak sa cursus ba nga def ba ba yàlla dugal la ci série boobu. waaw man série bi nag en réalité ni ma ci duggee du ma ne hasard la parce que nekkoon na loo xam ne dafa tombé coïncidence la parce que Ismaïla Talla ki ñu woowee IS 814 maa ngi koy remercier de passage moom tamit booy géejewaay la rakk fu malaat ñëpp xam nañ ko ràññee nañ ko léegi ndax liggéeyam pas parce waa këram rek.

flexible na te ñi ñi may tamit si idole tamit ñoom bu ñu la woowee disponible loo am nañ benn compréhension boo xam ne dañ la koy may ne la waa ok dañuy reporter sa tournage ak yi nga war a tourner ba beneen yoon voilà. Euh, tey euh, ba nga duggee ci série bi ak macha allah la yàlla defal melo ko sa tur bi àgg tey fu nekk ku nekk di la safoo euh, lan ngay way lan nga ci am comme surtout xale yu jigéen ñi démb bu dul dara da ngaa boo nag ah <laughs> da boo loolu lan nga ci defal xale yu jigéen ñi. alhamdulilah parce que bu dara. comme ni wax mu di waxee rek xëy ñu rek baax te tamit ñu ngi góorgóorlu tamit ku gën a baax tamit lépp lu ñu am tey yonent bi moo ñu ko ëppale woon suñu sëriñ Cheikh Ibrahima Niass moo ñu ko ëppale donc ñun lépp lu ñu am tey rek moom lañ koy delloowaat di ko ko sante te alhamdulilah ba dara yéegul suñu bokk lu dul ab taalibe donc daal xale jigéen ñeeg xale yu góor ñeek mag ñeeg ndaw ñi ñi ñu safoo ñëpp xam nañu ñun caaxaan tax ñu jóg te liñ ci duggee nii pour inspirer ñeneen moo wax ñu gën si toog kon tay ban message ngay lancé pour jeunesse bi nga xam ne ko bëgg na suivre série bi souvent au niveau des côtés la man idole heure bu moo ci defee benn sujet su ma paree man dama si jàngee samay élève tamit dañ siy traité encore même sujet en classe parce que ay jàngale la man tout le temps man man sama bopp man mii di si jouer dama si jàngee chaque jour je leur dis que c'est une série boo xam ne c'est magnifique la personne qui euh, produit la série c'est une personne boo xam ne visionnaire la et que man je la respecte de passage man ngi koy nuyu mu tudd Ibou ak euh, équipe technique bu idole bi yëpp parce que lu ñu munti wax man jànge lu bëri ndax dafa ma théâtre dafa ma cinéma feneen mais si seen biir lañ may corriger lañ lañ amee benn patience tamit di ma wax lii baax na lii baaxul ma gën a amélioré wu ba alhamdulilah ñu egg tey fi ñu fi ñu egg nii. ma seetlu wax léegi-léegi jàngale ak élèves yi en boo xam ne da nga ci film ay at bi la seetaan. Mhm. Euh, maam star yaa sa élèves yi na lay demee. sama élèves may gaañ lañ. man lépp li nga xam ne professeur da ko doon def di ma énervé fexe naa ba moytu ak samay élève donc loolu noonu nekk na piège bi nga xam ne moytu naa ko ba pare beneen affaire bi mooy xale bu la nawee lépp loo bëgg a dugg si bopp bi dafay dugg ci moom macha allah tey jege nañ xale yoo xam tamit ñu muus lañ tey alhamdulilah daal sant naa yàlla bi ma amee ak ñooñu comme ay élève et que tamit man tamit kon nu nga waxee tout le temps lu mu leen jàngal rek damay fexe ba ëllëg su ma naree def sax loo xam ne lu baaxul la te ñoom terewoon naa leen ko damay fàttali ne ma ah coach góor a ndax ma leen moo woowee coach góor a lañ may mooy coach lii parce que yaa ngi tere xale yi donc yow tamit bu ci bu bu ko def parce que Mahatma Gandhi dafa tàmm di wax ne be the change you wish to see in the world mooy nekkal changement bi nga bëgg a gis si àdduna bi donc soo bëggee jàmm si àdduna bi sax bul andi xeex soo bëggee Sénégal bu set bul sànni mouchoir si mbedd bi bul tifli si mbedd bi bul euh, dem gannaaw ko si mbedd bi Eh, léegi nag eh, daanaka maa ngi ciy jeexalaayu entretien bi ban message ngay sànni en tant que fils de Guédiawaye Guédiawaye lan nga ciy wax. man Guédiawaye laa am Guédiawaye laa bëgg fa laa juddoo maa ngi xaw ma leneen te li may wax waa Guédiawaye mooy ay champion ñoo fa dëkk ndax fépp foo mu dem ci Sénégal ak si àdduna bi di nga gis kenn koo xam ne Guédiawaye la jógee te mu ngi def loo xam ne lu ràññeeku la donc site bi encore tamit ñu leen di féliciter di leen gërëm encore parce que yéen a ngi loo xam ni ñu bëri defaluñ ko xale Guédiawaye yi li ñuy def mooy dañ leen di wan loo xam ne nekkul dëgg ñu ngi leen di naxee si lu bëri te ñun nañ gëm suñu bopp te xam ni géejewaay ñoo ko moom ñun ñoo ko mun changer suñu bopp changement bi nag suñu jëmm yi lay commencé ñun suñu bopp d'abord ñun buñ changer suñu jikko changer ni ñuy doxalee après incha allah dina am benn impact boo xam ne dina am suñu biir géejewaay boobu noonu incha allah. kàddu gu mujj. sant yàlla beneen yoon sant samay waajur sant sama sëriñ Baye Modou Guèye ak samay xarit yépp Kalidou Koulibaly Antoine Salif Ndiaye. ñooñu samay jóo lañ gars yi xam na que ñoom ajuma et tout ak euh, sama ñoom tant fi ñu defee émission bi nii macha allah ñoom Babacar ñoom Diary Ibou fay ñoom ñëpp alhamdulilah waaw maa ngi leen di gërëm encore benn yoon te ñaan yàlla tamit mu yokk Guédiawaye info ba mu romb fii nii jël jafe bàyyi